jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com di tàmbali ci at mu bees bi di ñaanal ñëpp jàmm wérgu yaram nekk ci ay tolof tolof yàlla na teggeeku seen kaw di ñaanal réew mi jàmm am fi parce que lépp ak lu mënta am ci biir jàmm la xaj di ñaanal ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu nekk suñu kanam nekk suñuy njiit dina ñaanal jàmm kilifa diine yi kilifa aada yi ñépp ñi ngi ñaan bu baax a baax a baax atub 2018 nekk atub jàmm lépp lu nit di yëngu mu gis ci boppam loolu moo nekkoon kàddu yoo xam ne seen sit Dakar Matin mi ngi leen koy jébbal ci nu mu gën a taaroo ak nu mu gën a rafete ndaxte li may faral di wax réew mi rek moo ñu ñor te bu nu réew mi ñoree ku nekk la ci yàlla dénk danga cee war a bay sa waar ba nga xam ne ëllëg ak si biir bu la laajee lan nga defoon ngir réewum Sénégal nga mën a yëkkati sa kàddu ne defoon naa ci lii di tàmbali ci xew-xew bi nga xam ne moo mujjee am moo di dàq gi nga xam ne Ousmane Tanor ak ñamu ànd ak dàq nañ ko ay nit ci biir parti socialist Ousmane Tanor bi nga xam ne 96 bañ koy teg ci boppu parti socialiste congrès sans débat la li ko indi woon waxoon naa leen ko trois heures du matin la xalifa Sall génn palais jubali kër Abibatu Mbay na ko Abdou Diouf nee na suba ci congrès bi bu coow li na ree bëri rek yëkkatil sa kàddu nga proposé motion ñu vote ko ndax lépp defar nañ ko ba mu yemb te moom la bëgg a teg ci boppu partie socialiste loolu moo tax ñu doon wax congrès sans débat ca booba Abdoulaye Makhtar Diop mii grand sëriñ de Dakar ma nga woon toog ci saal ba am benn xale bu jóg ne viiw jiboka mu dóor ko crochet xale bi daanu Mbaye Jacques Diop yal na ko yàlla yërëm feesaloon dell saal congrès bu parti socialiste ci anam yooyu lañ ko falee ci biir parti socialiste ñu seetlu ci moom nag benn mbir Ousmane Tanor Dieng mooy lan 96 ba mu jëlee parti bi ba tey jii di parti socialiste moom moo ko yóbbu opposition moo gën a rësal ay résultats am te benn méthode rek la xam muy lan dàq wala fi nag dañuy faral di wax ne ku yor kilo mburu di dagg di sànni rek boo sàgganul boo deful ndànk doo desee dara te li ma jaaxal. xool leen ko jàngat leen ko bu baax a baax ba parti socialiste tàmbalee dàq ba tey jii day gën a wàññeeku rek day gën a rës day gën a néew doole kon jaaduwutoon ñuy xalaat ci Ousmane Tanor Dieng rek laa gis koo xam ne amoo benn méthode lu dul exclure 96 Djibo Kane dàq ko teg ci Moustapha Niass nga nekk directeur campagne électorale Abdou Diouf perte élection 2007 nga nekk candidat perte élection 2012 nga nekk candidat perte élection lu ci am ak lu néew 2009 ay nit ñoo jéngu ci biir parti bi ngir parti bi mën am benn taxawaay naam ñu d'accord ne traversée désert bi ngeen def diggante 2000 ba 2012 am na rajeunissement bu ñu gis ci biir parti bi waaye parti bu nekkee ne sukkandikuwul lu dul di dàq ay nitam ak i militant rawatina nag nit ñoo xam ne ci dëgg-dëgg dañuy gañe ay élection Ousmane Tanor Dieng ngéejeen la ma sa gañe te ngéejeen bu ko Ousmane Tanor Dieng gañewul woon <laughs> daanaka vraiment loolu moom mën na retraité politique rapidement Nguéniène ndax ku xam Nguéniène yaa ngi ko xam ndax Ousmane Tanor waaye ba mu doonee candidat ci département bu Mbour dañ ko fa duma ci élection yu mujj yi Ousmane Tanor nekk na candidat département de Mbour ki yor président stade de Mbour moo ko duma daanaka boobu mooy njëlbeen yoon sax defe naa partialiste di perte mbuur yow nga yore. parti tey jii lan la parti socialiste tekki bu nekkee ne nekkul ci biir coalition ñu génne xayma parti socialiste nan la toll te li ma gën a jaaxal ñi muy dàq pour faire plaisir à Macky Sall ñooñu muy dàq tey jii APR jombalewuñu rusluwuñ sax ngeeñeen gi mu fekk baax ñu samp fa ndënd janoo Ousmane Tanor Dieng bëgg koo xañ tey ma nettali leen lu doy waar gis nga jour bu résultat élection locale yi génnee ñu ne gañe nañ Ousmane Tanor ca mbuur président Macky Sall woo gouverneur bu Thiès mu dëggal ko résultat yi dafa ne alhamdulilah génneel nañ ma dëkk ci sama tànk ndax nag grand bi saa wax rek mu ne je gère Mbour loolu la Macky Sall wax woo ki gañe ma Tanor Dieng ca Mbour na ko maa ngi lay sant di la gërëm ndax saa bu ne def réunion boo ne mbuur rek Ousmane Tanor Dieng ne non foofu je la situation comme gañe nga ko nag du ma mën a chantager dara yow ngay néewal doole sa parti kii nga bëgg a def plaisir bëgg lu ko neex kooku ca boppam ma ngay dooleel partem subaak ngoon guddeeg bëccëg tey jii ñépp ñu Ousmane Tanor dàq soo xoolee sénégalais yi ñoo leen wóolu fal leen duñ ay nommé de moom Ousmane Traoré na xool ci clam ñaata élu la ci am ak ñaata nommé na xool ci clam ñaata élu la ci am ak ñaata nommé waaw ki nga xam ne dafa am légitimité populaire nekk ci biir parti jëmmal boppam kooku doo ko dooleel pour parti gi gën a mën a taxaw déedéet du ko def de moom mii di Ousmane Tanor Dieng sax ci dëgg-dëgg lan la am CDD contrat durée déterminée ci au conseil collectivité territoriale bu xoolee Macky Sall bët bu ko neexul Macky dàq ko ci biti décret koy fal chaque année renouvelable un an ki waxante dëgg te yàlla tax xam ne bu ñuy wax ne ñoom réew mi moo leen ñor ku réew mi ñor suuxat démocratie da lay ñor moo di defar parti bu am doole boo xam ne ëllëg ak sibir bu sa allié bëgg a def naka su dul noonu sax nga mën a taxaw ne sénégalais yee ma ñor réew mi ma ñor suñ waxee ñu ne wuy nous nous vraiment des hommes très loyaux par rapport à la coalition Benno Bokk Yaakaar déedéet li nekk dëgg ba nekk dëgg dafa mel ni dañoo aigri méchanceté dugg seen doxalinu politique xam nañ ne fi mu nekk nii ci wàllu politique mënuñoo weesu lii Macky Sall def leen defal na ko tamit lu ko Abdou Diouf defalul ak Léopold Sédar Senghor ndax mi ngi doog a dégg président ministre d'état rek la woon chargé des affaires présidentielles tout puissant nag mais bi pas nekk na président yor caisse noire voiture yu dal la il ñu dellu siwaat xel bu ñuy wax yow nga am nit ñoo xam ne dañ leen élire seen base sénégalais yu wóolu leen jox la ndombay tànk ngay ñëw di dàq di sànni di dàq di sànni parce bokku leen vision balaa may dee nag ñu taxaw di wax na oui au niveau du parti socialiste dañoo am benn vitalité démocratique non c'est dans la confrontation des idées la vitalité démocratique di am mais kenn umpalewul mbir ne Ousmane Tanor Dieng moo téye appareil parti socialiste lan moo fa jëlee ñoom Robert Sagna ñoom Mamadou Diop après 2000 ñoom Sékou toog na ko eh patrimoine nu bi foog ñu xool ko munoo cee nguufaan def la neex mun a ala mukk ñu dem waaye ba muy metti boobu ñoom Khalifa Sall ñoom Aïssata Tall Sall ñoom Abdoulaye Wilane ñoom am Aminata Mbengue Ndiaye ñoo def conclave de Savana jàppale ko mu taxaw bu baax a baax te nag ci wàllu politique élève Khalifa Sall la woon ci ndigalu kan Abdou Diouf ndax ñi muy dàq ñëpp ci biir parti bi soo xoolee ñi ci ëpp ñoo ko ëpp légitimité ci biir parti bi ñoo ko fa jiitu gën a xeex ngir parti bi te moom Ousmane Tanor Dieng bu xippoon bëtam tuuti di xool war naa xam ne Macky Sall bu ko wóolu woon lool wóolu ko ca dëgg-dëgg xam na ne il contrôle son parti du tëj Khalifa Sall du jar muy tëj Khalifa Sall déedéet. te jar muy tëj xalifa Sall bu Macky Sall gëmoon ne Ousmane Tanor Dieng est le tout puissant les militants sont avec lui entièrement totalement du soxla tëj xalifa Sall xaayaan ku dégg séeréer buñ demee ba biir parti socialiste léegi buñ fay réunir affaire u parti force de l'ordre yi ñoo fay ñëw fees fa dell mu mel ni état de siège la ñu nekk kon y a quelque chose bu leerul Khalifa Sall lu ko dugal kaso président Macky Sall xam na ko bu baax a baax ay sondage lañ def yu leer nañ gars yi na ko bés bu xalifa sampe ndëndam électorat bennoo bokk yaakaar da ngeen ko nar a séddoo te yow boo demee bu fooree ba foor trente cinq pour cent ngay am ay sondage lañ yor sondage yooyu baaxee nañ ñu ko de dañ ko téye wax jotagul rek nee naa leen lépp lu ñu war a wax dañ koy àppal dañ ne ko au grand maximum trente cinq pour cent ngay am rax ci dolli ma beneen mbir lu irrationnel xam nga sama gars yi dañoo gëm affaire sëriñ gëm ko lool sëriñ buñ gën a gëm nag dugg xalwa musuma ko woon bëgg a wax duggu xalwa gis turu xalifa Sall mu nar a doon gàllankoor seen deuxième mandat ñu ne ko noo leen mën a def ba tëj ko ràpp ci biir kaso le temps ñuy def suñuy dog ak suñuy per ngir wàññi ko def leen ko ba pare ne ko boo leen ko mayee benn jour de liberté provisoire rek dossier bi yëpp yàqu loolu moo indi Khalifa Sall mosuñu ko may liberté provisoire fu mu ko ñu dàq ko ci baatin dañ leen ko wax ñoo ko gën a xam sëriñ bu na gën a gëm moo leen ko wax ci xalwa dugg gis ko mbir mi yëpp nag bu amee Tanor Dieng Ousmane moo matul njiit li nga xam ne wala ay intérêt lay gérer mooy aigri méchant ñoom ñëpp soo leen xoolee fi mu nekk du Sénégal la ñuy xalaat dañuy wax ne ñun jox nañ suñu bopp sénégalais yi gën a compétent gën a xam état gën a xam lépp sénégalais yi mosu ñoo jox benn cër mosu ñoo votel ah il préfère ce jeune Macky la ak kàddu yu ñu daan wax ci suuf ah qui nii ni compétent ni respecté kon maintenant passez-moi l'expression ngeen baal ma ci kàddu gi on s'en fiche on ger notre fin de carrière politique et notre famille on a suffisamment d'argent suñu yoon nekkutu ci comme comme ça qu'ils réfléchissent en ce moment ci biir réflexion boobu Ousmane Tanor Dieng yónni na émissaire Khalifa Sall ci biir kaso ne ko il faut revoir tes ambitions et tout ça et on la machine et on la machine xalifa lan la ko tontu xam nañ lu bari xalifa Sall dafa ne ko si tu du bien de la caisse d'avance ndax xam nga ko bu baax a baax a baax nga bàyyi mag yàlla loolu laa lay tontu donc on a la capacité d'arrêter la machine comme de déclencher la machine loolu mooy indi lan mooy ne justice bi ñu ngi leen xaar Maguette Diop lañu waxoon ne moo war a juger Khalifa Sall dégg nañ ne dossier bi léegi mi ngi ci Malick Lamotte Maguette Diop ak Ahmed si ay assesseur lañ mais Malick lamot moo fas yéene àtte dossier bi waaye nag damay félicité wu ci benn mbir dama daan wax ci justice saa su ne ñu ne damay attaque justice ma ne leen déet yéen a ngi juum dama ne attaqué wu ma justice attaqué wu ma magistrat damay ñaan yàlla ñu bën a nërmeelu ndax ñoom rek ñoo mën a sauver Sénégal seule la justice peut sauver ce pays parce que homme politique day am ay ambition am ay méthode am ay stratégie lu ne dina ko def pour conserver son pouvoir waaye bu ñu amee ay juge ay magistrat yu am fulla am fayda ñu bañ leen manipuler dëkk bi dina régler ci loolu ñoo des magistrats du Sénégal def ndëpp colloque sur l'indépendance de la justice bi ñu doon jooytu ñëpp di ko jooy waxuma de allin Ndao procureur spécial la wax ci tubaab dafa graw ci révélation moo tax dama ne woon faaw ma wax ko ci wolof ñëpp dégg ko nga xam ne du samay kàddu ay magistra ci boppam ñoo yëkkati kàddu sa ngeen jooy si ñu justice toroxe ñàkk indépendance am Alioune Ndao moom moo wax ne pouvoir exécutif bi des fois day bloqué liggéeyu juge yi chancellerie maanaam ministre de la justice mi nga xam ne président de la république mooy patron nekkewuñ fi lu dul joxe ay instruction te instruction yi nu war a joxe c'est dans le sens de la poursuite topp leen diw waaye li leen gën a jaaxal mooy instruction yu ñuy joxe yëpp des fois te lu ci gën a bëree bëri bàyyil dossier bi bul topp kii nii la lal dossier bi te nee na amul benn texte bu leen autorisé ñuy def lu ñu mel waxuma de Aliou Ndao moo ko wax ñoom ñëpp ñu toog mbir King Fahd yamul ci loolu sax de nee lu gën a doy waar gën a jéggi dayoo moo di par téléphone la ñuy joxe instruction yi defal lii defal lii defal lii juge bu ko ci deful yat bi dal sa kaw moom xam na ko CREI yi dafa bloqué dossier Madické Niang bloqué dossier bëgg koo instruire ñu ne ko mun nekk doo ko def mu dëgër bopp yat bi dal ci kawam mu jëlee ko CREI loolu dong la mu ne ay collègue am néew na ci ñoo xam ne dañu am fulla ak fayda ne autorité bi duñ def loolu lu gën a garaawati dégg naa ñuy tontu mais procureur de la république dafa am patron c'est le procureur général mooy patron wu procureur de la république mais pouvoir exécutif day tëb kooku jox procureur de la république sant ko mu def Aliou ndaw mooy wax de ba tey ji nee na lu gën a garaawati dem nañ ci sax ba procureur de la république bu patron waxee ko defee ni mu bañ ndax doole ji ko pouvoir exécutif di jox tey jii ku dégg Lassana Diaby ci dossier xalifa Sall moom mooy patron wu Serigne Bassirou Gueye mooy procureur général kan moo ko ci dégg instruction kenn amul sañ-sañ di ko joxe ci téléphone dafa war a am trasabilité ñu bind ko Aliou moo wax loolu yépp kon ñun ba ñuy wax ne indépendance justice dañ ci am xel ñaar suñu xel da ciy tey ba ñu bëgg a wàccu parce que ñoom ci boppam magistrat yi ñoo ñu ko démontrer du début jusqu'à la fin président UMS wax ko ne pouvoir exécutif dafa jël emprise bu rëy ci pouvoir judiciaire prise bi du lenn lu pour contrôler ko dossier bi nii laa bëgg ngeen traité ko juge bu ko ci deful ñu dal sa kaw tuddaloon naa la ñetti juge yoo xam ne yépp jël nañ décision yoo xam ne neexul pouvoir exécutif bi affecté nañ leen relax Aïda Ndiongue bu jël décision bi affecté nañ ko juge bi relaxé Abdoul Mbaye affecté nañ ko juge bi nga xam ne moo tax tëjuñu Barthélemy Diaz affecté nañ ko ñoom yépp kon du ñu def lu dul xaar leen xipp suñuy bët di xool am yaakaar bu baax a baax na ginnaaw colloque bi dañ jël en réalité leur destin en mais parce que dafa am lu ma naqadi lool su ma demee ba gis ne fii ci réew mi léegi ku je politique bu ñu réeroo sax ñu ne ñen wut magistrat ñu attaleen ñu ne mukk bëgguñu magistrat te lu fi mësoon a am ci réeroo ca dëgg-dëgg code consensuel baa mbay magistrat Jayite magistrat luñ fi ma a am magistrat yi ñooñu doon sauvé suñ demee ba léegi kujje politique bëggatul loolu war nañ xoolaat suñu bopp. waxoon naa leen cent trente milliards yuñ joxoon Abdoulaye Sylla ci marché voirie assainissement pôle urbain de Diamniadio bañ chronique bi gudd moo tax du ma ci dellu siwaat mais dinaa dellu si chronique wal leen ne li homme d'affaires yi di jooy dëgg gu wër péng la marché état bi yëpp muy ministère yépp Ecotra rek moo koy gañe dinaa leen ko limal benn par benn en 2017 la ñu gagné ak montant bi ak lan la incha allah prochaine chronique parce que nee naa leen du ma làmbaatu lu may wax dafa am fu ma koy teg fu wóor fourniture équipement bloc scientifique travaux d'aménagement fourniture pose quatre pompes ah solaire en de réalisation dinaa leen wax loolu yëpp montant yeeg koppar yi soo leen paree ngeen jël xaalis yëpp ngeen additionné ko ngeen xool est-ce que ce n'est pas l'unique homme d'affaires bu jaxasoo ak ñoom lépp lu lang mu jël di leen sant di leen gërëm leen dig dajee incha allah seen benn chronique seen site dakarmatin.com